أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ومن والاه wa ala alihi wa ashaabihi wa sallama taslim mbokki assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen ñi nga xam ne yéen a xel seen Sam TV ñi ngi del di leen nuyu di leen balaq di leen balaq di leen ziyaara di diisal ci nuyoo yi suñu kilifa diine di leen ñaanal yàlla yàggal leen fi yàlla saafara way tawat yi yërëm way dawli yi guddal fanu ñu fi des tënkuñu gi siraatul mustaqim te barkeel suñu dund mbokk yi ñuy fas yéene ànd ak yéen ci seen jataay bu njëkk ci seen émission diine bi ñu tuddee tazkir watan bi fil islam ak seen mbokku sëriñ Kosso Fall ñu koy fës yéene ànd ak yéen alxames bu nekk ci waxtu wi bu mel ni tey ñu ngi ci fan mujj ci shahru ramadan mubarak di weeru koor di weeru njëriñ weeru xéewal weeru yërmande weeru dimbalante weeru ñeewante weeru promotion tamit mu melni ci fan yi ñu mujj ci la yenn sala sala waxoon ni koor gi boo ko xaajee ñetti fukk lay doon fukk yu njëkk ya mooy yërmande fukk yi ci digg bi mooy njëggal fukk yu mujj yi mooy jot sa bopp ci sawara mooy mu mel suñ tollee fii ñi sant jaañ wala jeng dañuy faral di am mbégte contentement ngir weer yi mi ngi commencé jeex ca fekk li war na am mooy sans maanaam safaanub loola ndax ko xam weeru ko li ci nekk ci ngëneel li ci nekk ci njëgal li ci nekk ci yërmande li ci nekk ci mbaax su demee bay commencé di préparer roñ ay bagage am bu don gan gu nga xamni dafa gane ci ñi ngi mi ngi mi ngi mi ngi préparé pour déllu wax dëgg yalla da ngay am xol ñeewante ci ni bu ma sañandu dem waye ñu bari buñ tollee fi dañuy bayyi seen loxo nga xamni nañ dugge won ci koor gi ci fan yu ñëk ya engagé jàkka yi engagé kool yu jullikaay yi engagé kurus yi engagé def lu baax engagé sarax yi dañuy commencé yangi dañuy bayyi li ñu dal fi nekk ni ñi ngay jëkkante xëy na hôtesse yaag jesneer yaag eh, ñoom sëba yaag dàll yaag ba ñu commencé njëkkante ba fàtte sax léeg-léeg mën leen a ñu xëy dem ba egg ci coonab ñàkk wor woor ji su mujj te loolu daray àdduna jëru ko te boo xoolee ku mel ni Mawlana Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu anhu fan yi bu fi ma saana tol moom bay bind ba demee ci xasida ak yaa ghayra dayfin ata bil bisri wal madadi eh, ca tarjumaan ne ma ngi koy wax naan suñu borom weeru koor mi ngi may tàggu mi ngi préparé pour dem te doylu ma ci moom du ma tayal ci moom ngir lim làmboo ci ay njëriñ làmboo ko ci yërmande làmboo ko ci neexaayu xalaawatul ibaada mooy neexaayu jaamu yàlla suma ma day sax dàkk waaye comme dem mënta ñàkk wax dëgg yàlla su ma sañoon du dem loolu nag la julli bu nekk war a taxawee ci ni bu koor tollee fii la nga débuté woon ci bu njëkk nga jéem koo multiplier maanaam yokk ko yokkaat ko ngir xamni mi ngi dem dana delsi naaw mais buy delsi naka day delsi fu mu lay fekk num lay fekke ci lu lay fekk ak dana la fekk motax nak nag wax ibtihalul fursu moy saisir occasion ci jamono yi la wara tollu motax yunus sallallahu alayhi wasallam bu day def wax ihtikaf ta moy ñi nga xamni ne def khiyamul layli ak ñi teji ci jakka yi fukki fani mujji di seen borom di yok seen jëf ju bax di taxaw fanaane julli di fanane naaf ba set ngir lan weer mi ngi dem té wér yi dafa nekk weeri ngeenel bu nga xamni lu ci way def tiyaba ji kenn xamu mu tollu kon so tollu ci fani mujj yi lo do def ben ci njëlbeen ben nga dang ko wara yok fuk sa muy lepp lu bax ta baña rek da am ñu ñoo bari ñoo xamni sax fani mujj yi liñ ci war wut waaw liñ ci war wut ngir ni euh, wér yi mi ngi dem wona ñaar fukki fan wala am na ci ñaar fa juróom légui li ki dess mom nan ka daal masal rek fekk na nak la war na war dëgg mooy fan yu mujj yi sa kéemtalaay kàttan lépp loo doon def ci bu njëkk nga gën koo yokk bu baax a baax a baax ci wàllu yépp nag jaamu yàlla gi social bi dimbale gi ñaan gi boroom euh, sarax yi naafile yi yooyu yëpp lu mu gën a multiplier wu gën a baax ndax tey boo xooloon tey jii ci misaal rek kenn ku ci nekk euh, comme yi téléphonique yi fi nekk suñu amee promotion ñu ni tey ba vingt trois cinquante neuf am na ñoo xam ni suñ demee ba heure bi di bëgg a jot nañuy profité def tout ngir bëgg gaaw bala heure bi di jot noo ko raw la war gën a profité ci lii bala nga xam ni waxtu yi mi ngi wees bi gi des moo di ni di leen fàttali kom koor yi mi ngi ñëw ñu bàyyi ko xel tey bàyyi xel li ñuy wax sakaatul fitri te mooy muurum koor ñu bari xëy na dinañ ko bàyyi xel ñenn ñi duñ ko bàyyi xel waaye salaatam dafa wax ni koor doomu aadama dañ koy aj ci diggante asamaan suuf duñ ko yëkkati mukk lu dul boroom dafa génne zakatul fitr te mooy euh, muurum koor su ko defee muurum koor mi war na bépp boroom kër ak ñi nga xam ne yaa leen doon dundal ci maanaam weeru ko yi ma sa njaboot ci njaboot gi tamit ku ko ci mënal boppam génnel ko boppam wàññiwul dara yow mi nga xamante ne yaa am sa responsabilité bopp nga génneel ko sa bopp ci gàttal rek ñu leeral ci dañuy wax ni buñ koy génne ñu génne ko ci lu ëpp ci li waa dëkk ba di dunde bu dee fii nag ñu li ñu xam xanaa lu ci bëri mooy ceeb lañ ëpp lu ñuy dunde ñu koy ma ci ñaari kilo la genn wàll deux kilogramme deux kilogramme euh, maanaam boo ko doon xayma ci xaalis tamit mën na nekk six cent ba six cent cinquante nga xam ne ceeb bi nga xam ne moom nga doon dunde ci weeru koor yi nga xam comme ça bu dee kilo trois cent vingt cinq nga def ñaari kilo yi muy six cent cinquante nga génne ko euh, bëgg na nga génne ko dugub comme noonu waaye itam joxe xaalis wàññiwul dara ndax ki koy jox tey boo ko joxon joxoon ceeb bisub korité du ko mën a togg boo ko joxee pepp du ko mën a togg day obligé dem jaayaat ko ngir dugge ko yëtum njabootam te lislaam li mu ci jublu mooy dimbali ñi néew doole ba bu bis baa ñëpp nekk ñu yam ci wàllum loolu kenn du génne di laaj yi kenn du génne di yelwaan yi moo tax ñu ni mën nga ko génne bu la neexee 48 heures avant ngay avant koy comme ça tey bu ñu demee ba mardi à part de mardi nit ki mën naa calcul euh, muuru ko waram jox ko ñu mu ko war a jox. soo leen xamee mm, ñi ko yellool nga jox leen ko soo gisee ñu ko yóbbu ci jàkkee ak jumaa yi mooy day fekk xamoo ku ko yellool waaw su boobaa nag boo ko yóbboo ci jàkkee jumaa yi comme ñiy laaj si dañ fay ñëw su jox leen mais boo xamee ku ko yellool moo xam sa mbokk la sa dëkkandoo la sa mbokkam deret la sa mbokk jigéen la boo ko génnee nga jox ko ko comme boo naan danga am benn soxna ñetti doom ak yow kenn ku ci nekk 600 nga koy nga koy nga koy nga koy defal maanaam bopp bu ne 600 dañoo wax sax gone gi nga xam ne dafa judd ci fajar gu fajaru ko koor boobu fajaru kori gi kooku dañ koy calculaale ci maanaam koor gi dañ koy calculaale ci ci ci muurum koor yooyu ko defee loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax ndax mooy lay mooy li segg ta mooy sellal jëf ji pour mu mën a egg muy zakatul fitri araam na nag nga man koo génne am ko bañ koo génne ba dem julli ji waaw mais li ñu bëgg daal balaa nga julli ji na ko génne moo xam bu néew suba gi la moo xam bu waye bala ngay taxaw di julli korite gennel murum koor jox ko ñi nga xamni ñoko yellol su ko defé ñoom itim la lislaam gëna jublu deug loolu modi ni ñu mëna jël loola dem ci marché gënd li ñu jënd ak seenu njaboot su bis ñu mëna nek ñu nga xam ñepp a yem ci kanam yoon ñu mëna solo mëna yépp manam solidarité bi nga xamni mom la l'islam di ki kon mbokk yi xamna ni bindi ji jeexut waaye ak seneen fi mu yëk di jotaay bi xamna leen jox di dajje ba khamis